taalibe ak seen mu ne yàlla leen yàlla fay yoonu taalibe yoonu pëstéef bi ngeen am bépp yàlla leen ko yàlla fay. mu ne gannaaw loolu. nu ngi jub bis boo xam ne bii. nee na nu ngi jub bis boo xam ne nii. sëñ bi moo ko digle woon woote ko. nee na Cheikh Moustapha al moo ko digle woon woote ko. mu ngi leen koy fàttali. nee na mi ngi leen di fàttali ndigalul borom kër gi mooy ndigalam.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 ginnaaw mu ne gannaaw loolu. mu ngi leen di fàttaliwaat. mi ngi leen di fàttaliwaat. di leen soññaat. di diine ji. ci diine ji nag. ngeen fonk nee na daal nag mi ngi leen di soññaat ci ngeen fonk diine jii di diine islaam muy seen diine. ndax yoonu murid bokk. nee na ndax yoonu murid yi nga xam ne ci la ñu ne. nee nee na lislaam a taxaw.